dana neexal sa borom kër te bañ di tàngal xolam soo ko defee rek sunu borom dana la may doom bu baax na nga fexe tamit ñu bind la faate faatixatul kitaab ba mu jeex benn yoon nga ubbi miim yëpp def ci sa turu borom kër boole koog tàndarma lekk ko li ci des nga naan ko da ngay bi jël ndox mi galax ko sa gémmiñ wan na ko mu jàll ci kàttanu yàlla mbaaxam sunu borom dana la may yoon bi ngay jaar ba am doom bi baax te benn problème du am sa turu borom kër ngay def ci biir mu fàtte yi cet cet bu lan bu góor moom bu jigéen bu jigéen cet moom dama la bëgg a leer leen na serax ndik xam ngeen serax ndik serax ndik ah waaw jël ndox nii mm-hmm. ne fin dugalaat fin dugalaat fin ba mu noon ñetti yoon nga jël ndox moom sangoo ko benn yoon guddi xam nga catu ñaara lay dund mm-hmm. catu ñetti at yi doo toppoon ci ginnaaw yëpp dañ na li ci kanam nag yaay jéem a lijjanti ni muy doxee. bu fayte na boor. ci borom këram ay këram ay mbiram dafa tëju moom ci yàlla boobu nag jéem a xool lan moo tëj ay mbiram seen mën naa bañ a ànd seen mën naa bañ a ànd tabi ay yu ni mel kooku mu doon lu leer waxuma dóorkati triant yi nga xamante ne loo wax ñun la mën naa ko te mënuñu dara. dindi tëddale. Hmm? luy dindi dëddale loolu yomb na dangay dem wuti ji doomu taal nga fexe ñu bindal la inna batsa rabbika la sadid dégg nga 111 nga jël ko buus ki ci doomu taal bi diw ko ci sa yaram ba mu tooy xepp nga bàyyi ba am 15 minutes 30 minutes wala nga fanaanoog moom ba bër set dëddale bu ñu def sa digganteeg nit toj na lu la liggéey nit liggéeyoon dañ na rab bu mu fa fekkoon bu tuxul day lakk seytaane bu fa nekkoon day doxi soxlaam xale bu jigéen bu bëgg a mucc ci nopp xale bu jigéen bu bëgg mucc ci nopp nga leen di bindal ko laxat jaakum mu boole ko ak dugubu suuna mu def ko juróom-ñaari nàkk daa bëgg mucc ci nopp mhm. day dox lekk benn taxaw lekk benn jonkan lekk benn ñaata nga du ñeent mhm. hmm? toog lekk benn du juróom mhm.